استجاب بالمخفي ربي بالمقارب الخزي أصلوا jërëjëf jërëjëf sëriñ bi mu ne fa tabaarakallah nee na Cheikh Saleh nee na dégg na kàddu yi bu baax a baax a baax nee na dégg gu sore sore sore nag la dégg kàddu yi nee na dégg gu ànd ak yéene ànd ak yitte goo xam ne Pastef rekk ko lal nee na noon yii la ko déggee nee na jërë ngeen jëf yoon waa ngi noonu nee na tawfeex rekk a koy maye nag waaye ku am tawfeex ji nag da nga yëg ne am nga tawfeex sag jublu di genn te yàlla rekk tax nee na sëriñ bi rek nekk sa jublu te yàlla rek tax mu ne bul gis leneen ci diggante bi nee na lu yomb sax waaye tawfeex lu mu dugg mu yomb nee na kon na seen xel dal bu baax a baax nee na laabiire gi rek mooy loolu waaye lu nu gën a jublu sëriñ bi lu gën a rëngëj jëm ci sëriñ bi nee na rëngëj mooy dox bu jafe kuñ jéng te mënoo ñàkk dem mënoo ñàkk dox am na foof mënoo faa ñàkk a àgg nee na yitte ji kookee def ak bëgg gëm muy bëgg a dem ak jéem ga muy jéem a dem nee loolu mooy warte fi nee na loolu nag faw nag bu tawfeex jooju amee ba jublu gi am tawfeex moo leen ci gàttandu tawfeexi sëriñ bi moo nuy gàttandu nee na noonu rek la demee nee na kon sant leen yàlla baax nu sant yàlla ba ten gën a góor lu baax na jublu gi gën a wér rek jéem a dem gi it di gën a yitteel bu leen gis ci diggante bi dara bu leen xool ci diggante bi dara lu dul sëriñ bi nee na lu jafe sax waaye lu yomb la ne bu dëggoo rek bu dëggu amee ngatanu mi am wommate bi door a ñëw nag nee na tawfeex yi door ñëw nag ñu wommatal nu ba sunu na gën a nekk ci loxo yi Serigne Touba nee na noonu rek la demee nee na fi nga waxee dégg nañ ko baax Serigne Saliou waaye fi la tontee fi mu la tontee sori na lool <laughs> nan ko dégg nee nan boole sant nun ñëpp tawfeex jooju nu am ci doyloo Serigne Touba ci sunu diggante sunu borom ci bëgg Serigne Touba sopp ko jox ko sunu lépp te yàlla rek tax nee na loolu rek lan mën a fayee Serigne Touba ndax amuñu lenn luñ ko mën a fayee loolu topp ko rek bañ a gis dara ci diggante bi bayliku ci biir ak ci biti sunu bëgg nay genn sunu jublu nay genn sunu yitte nay genn sunu cafeel nay lenn sunu wommatu nu def ko sunu yitte lu loos bi gën a woyof wàmmatu gi gën a yomb nee na loolu nag mooy joxe suñu lépp rek te muy dëgg ci noonu fas yéene wàmmatu rek loolu rek moo ci am solo jërë ngeen jëf nee na <laughs> waxee ni sorin la lool nee na fam ci bëgg àgg lamiñ yi attanuñu ko waaye yàlla xam na ko su Sëriñ Tuubaa mii sunu lépp te sunu dara bëggunu dara lul moom tey ëllëg moo nu gën a xam sunu bopp nee na loolu nag yàlla na koy waxal nee day wax ne jaam bu ne sunu borom moo la gën a xam sa bopp gën la ci sa bopp moo la gën a xam sa bopp gën la ci sa bopp noonu rek la Sëriñ Tuubaa demee ca noonu dun jërë ngeen jëf jërë ngeen kon nag mu nga noonu nan ko dégg bu baax parce que yéen jàpp parce que yéen dund parce que yéen yittewoo bu ko def tawfeex ji day gàttandunu bisimilah eh, xol xolam sedd na xelam dal na te noon noonu yi noo war dugg ci moom yaakaaram dolli ko na kon noo noo dugg ci biir loolee nee na yoon waa ngoogu rek nee na na rëngëj rek te def rëngëj na doon sun yitte rëngëj na doon suñ yitte mën nañu ne fab nag ne na cas yóbbu nu fan jëm mu ne muy fa kanam Serigne Touba fa teewu Serigne Touba alhamdulilah ne suñu xel mën naa dal waaye nu gën a doo góorgóorlu dolli ci luñ góorgóorlu doyut nan fab suñ lépp jëme ko jublu yàlla jaare ko ci Serigne Touba rek la demee jërë ngeen jëf sëriñ Saliou ñu sant yàlla bu baax waaye ngeen xam ne seen waxtaan wii gëj gëj na fii de waaw nee na lu yemee seen jataay bii nee na ah, li jataay bi li muy def ci moom amul lenn loo xam ne moo di waxtu wu ne rawatina seen jataay bi neen di ci gën a yeesal ak jaayanteem digga ma sëriñ Tuubaa gën ci feetla ak laxasaayam digga seen parce que yéene ànd ak yéen sax dakk yi suñ jaamu yàlla suñ kem kattan lépp nu fabaat ko liggéey la ko sëriñ Tuubaa jëf yàlla yaa sama siwal ko si كل سري وكل يوم بنبي فيه يا خير ناصر وخير مالك انصر وملكني بالنماء